indi nañu également mille thermoflash indi nañu deux cent mille indi nañu système de lavage mais fekk nañu aussi fii si Thiès que seen responsable yi taxaw nañu ñoom aussi jóg nañu déglu nañu léegi le président du conseil départemental wax na li mu indi si au niveau de euh, au niveau des masques ñaata la def au niveau également de service d'hygiène lan nañu wara def ci essence ci matériel ci machine yo xamna ne jënd nañ ko jox ko euh, l'inspection d'éducation formation di wax rek dañu ñëw pour constater liñu ñu gis fii ci Thiès comme ñëpp jog nañu liñu laaj moy que au niveau du Sénégal na parents yi élus yi euh, jeunes yi étudiants yi ASC yi ñëpp nañu jog xam na que le deux incha allah. conditions comme am nañu suñu protocole boo xam ne est validé protocole boobu respecte ñun ñëpp dañ si jàpp. pour que enseignement yi mën reprendre pour classe d'examen examen yi. école bu nekk dafa war a am benn comité de suivi ñoom mun nañu bañ a sax ay enseignant comité boobu ñu ngi à la porte suñu xamee ne température bi dal ni mu mel xaw doy war légui équipe bobu jël ko wax ko gouverneur wax ko au niveau régional médical. ñoom ñu jël kooku yóbbu ko donc condition yi jël nañ ko en tout cas li ma gis fii ci Thiès noonu la su si yàlla àndee à partir donc de demain encore maa ngi dem si yenn région yi